salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal nuyu nañ ñëpp képp koo xam yaa ngi safoo seetaan Sen TV le roi du manding tey ñu ñëw fii kër suñu papa Thierno Moulay Sow mu dalal ñu nga xam ni kenn dootu ko présenté defe naa ñëpp xam nañ ko mu nekk xalif général kuli médecin donc mu ñëw fekkaale fi ay patients yoo xam ni dañoo toog man nuyu sama papa Thierno Moulay rek nuyu waale leen yéen ñi fi toog di koy naan na présenté wu waxtaan ak pour mën a waxtaan ak moom pour xamal ñi nga xam ni tey jii ñoo ñuy suivre liñ fi fekk nan la demee ak lan la ak moom lan a leen yëkkati Papa Thierno mën naa leen di nuyoo rek du ma la waxati présenté wu. waaw mm. ah, alhamdulilah rabbil alamin auzu billahi mina shaytaani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonente bi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la nuyu soxna Asi di bu baax a baax di nuyu suma gan yi tedd nga xamante ne dañoo jóge bu sori ñëw di nuyu waa TMTV le roi du Manding di nuyu Ba Chidi di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu ak ñëpp ñu ñuy seetaan di nuyu patients yi nekk Europe ñu nekk Asie ñu nekk États-Unis New York partout dans le monde ñi nga xamante ne ñoom ñoo may bàyyi xel man Thierno Moule Sow nuyu naa yéen nuyu naa yéen ñëpp ziar naa leen bu baax a baax te naan leen bismillah soxna Aliou. gis ngeen na ginnaaw bi suñu papa Cheikh na nuyoowee def présentation bu am solo boobu damay daal di tàmbali rek ñun ñi nga xam ni tey jii ñoom lañ fi fekk ñu daal di nuyoo waa Sénégal ñu doog a commencé suñu waxtaan. sëñ bi ma bëggoon xam rek tey lan moo fi teewaay bi lan moo waral ñoon man ma ñëw fekk leen fi. waaw teewaay bi de tànku jamono rek. nekkoon ci ay jafe-jafe yàlla dogal Thierno Moulay maa ngi koy nuyu di turam nekkoon na loo xam te dafa jafewoon trop yoon wi méttoon na trop mais ginnaaw yàlla moom moo saafara lépp su kii sama soxna la kii sama soxna la bi ñuy nekk jigéen wérul méttoon na lool mais Thierno moo ngi ci dimbale ba lii am tey boo gisee lii am tey gannaaw yàlla moom la parce que kii di sama deuxième femme mu nekkee ay état amoon na ay jafe-jafe yu bëri keroog yaakaar naa ci interview bi keroog waxoon nañ ko Pape Sidi yaakaar naa fekk na ko waxoon nañ ko ci interview bi keroog waaw waxaat nag yaa ko ci wax dara parce que am rek amoon na ay jafe-jafe yu méttee métti ci biir euh, ëmb bi mais lépp Thierno la parce que njëkkoon euh, ëmba affaire bi am problème ñu woo Thierno mu intervenir mu at problème ñu woo Thierno mu intervenir ba yàlla def mu muccee bi mu muccee itam ngénte bi noonu na du am nangam nangam ñu woo Thierno wax woo Thierno nee na ngénte bi dina am. Mhm. te ngénte bi am na ci jàmm. passé na ci jàmm kii itam mooy sama première fa noonu la woon itam. Mhm. même ngénte bi ñu koy waajal amoon na ay jafe-jafe mais biñ ko woowee Thierno ñu wax ko dafa ne di ngeen ngénte ci jàmm te yaakaar naa ngénte nañ ci jàmm xale yaa ngi nii soxna yaa ngi nii. Euh, mbokk yi mu mel ni ñun ñoo ngi waat fii kër xalif général médecin traditionnel yi ki nga xamante ni moom mooy Soundiata Keita bu dellu si waat Euh, waaw sunu mbokk yi nga xamante ne ñoo jógee kaw rek wax na dëgg ñun fekkee woon nañ benn émission boo xamante ne am na lu ñu ci doon leeral. tey ñu dellu si waat maanaam ba du bëgguma ngeen ñëw tey lu leen fi indi léegi léegi. parce que dafa am lu am solo loo xamante ni man maanaam ñi saat ko bëgg xam. muy yéen bi ngeen fi bi fi ñëw yow ak sa benn soxna la woon tey nga ñëw ak sa ñaari soxna ak sa ñaari tànk hmm. donc la moo waral keneen ki. waaw keneen ki li li li dal ki moo ko dal rek. Hmm. loolu moo waroon ñu indiwaat ko. Mm-hmm. parce que wax naa la ko sànq keneen ki itam bu mu àggu see. Mm-hmm. Euh, dañoo doon ci bi ñuy programme ngénte bi. ñoom itam am na lu doon programme. Mm-hmm. ci seen biir. pour yàq ngénte bi pour faagagal doom bi. wala pour jox ñu ay ñam yu bon. ay euh, lu ne daal faxeel daal. faxeel na lu ne mais bi ñu ko waxee Thierno. Thierno dafa ne ngénte bi dina am. te ñoom bagage yi ñu indi noonu. yëpp nañ ko delloo moom te effectivement bagage yi gis nañ ko. bagage yi yan bagage ay bagage yu bon ay bagage yu pour boo ko lekkee nga am problème bagage yu daal hmm. waaw. Euh, soxna si yow daf mel ni keroog gisante wuñu keneen ki moo ñëwoon donc bëgguma wax seen tur euh, est-ce que mun nañ xam yow yan métit moo la daloon ak lan moo tax nga ba ñu woo Thierno Moulay waaw d'après sama jëkkër lu mu wax dëgg la ndax na mënuñu ko fay. Hmm. yàlla rek moo koy fay. lu mu wax yëpp dëgg la. ndax balaa am doom ëmb la woon bu ñuy door boobu ëmb bu ndaw te ci lañu amoon ay problème da ngay jékki-jékki ngay sañe muy daw muy daw di tës tës di ut di woo cernu muy indi ñi ñii sangu ñii raayo sonn nañ trop si ëmb yi grâce à cernu ba lii tey mu am ñu téye ko nii hmm. waaw. bii bii mooy sama ñetteel doom. lan moo tax ñu bàyyi ñaari beneen ñetteel bi ñu ñëw di la song. mën na am man d'après li ma si xalaat mën na am lu mu doonee góor ndax mu mosuma am doom bu góor. Hmm. yàlla def euh, biñ ma taqalee wujj ci la yàlla def ñu ëmbandoo. Hmm. bu ñu ëmbandoo xam naa dañoo xamoon li war a xew. Hmm. ñu def seen pexe yu bon. ñu sonal sama wujj bii. sonn na torop torop torop façon métit bu neex. amoon na ko si ëmbam gi yàlla def cernu mii grâce à cernu sama jëkkër ji aussi doon koo xam ne euh, nit ku baax koo xam ne jàppale nañu mu sonnoon si ñun nag muy daw si cernu cernu di ko jox ay ñaan ñu koy utiliser ba tey lii am waaw euh, amuñu fayu cernu ndax euh, bu ñuy am doom aussi man sama accouchement mettoon na trop moom mii woo na Thierno si accouchement ba te accouchement ba gisoon naa lu ne lu ne gisoon naa ko ñu ne doom bi du juddu doom ji bu naree juddu yaa ji dem ou bien doom ji dem kenn si. gis bi nan ko doon gisee gént naa. ndax gént naa ay jaam. ñu may dàq. Hmm. gént naa ay nit. Hmm. ma dàq waaye man dama daw daw ba rëcc. mais malgré garab yu ñu jox ñu utiliser moo tax ba ñu rëcc tey waaw léegi bu ñu jógee si accouchement ba yàlla def ñu accouché jàmm mu doon góor ñu ne duñu bàyyi ñuy dem ba ñu wax waxu ngénte bu ñu nee ngénte mu jogaat sama borom kër jogaat ñu war si Thierno ñu ne ko mu jogul rek ngénte bi du baax dañuy ñëw pour yàq soit ñu jël doom ji mu ñëw mu ñëw si Thierno Thierno joxat ko ay bagage mais malgré ngénte barki dee ñii indi woon ay bagage yu bot ñoomu ñu delloowaat seen bagage parce que amuñoon benn bunt may leen benn bunt boo xam ne mën nañ ñëw yàq suñu xew man daal gis naa Thierno mi jar na jàpp ku ko jàpp am lu baax ndax Thierno moo ñu may lii tey ginnaaw yàlla Thierno mii jar na jàpp maa ngi wax askan wi nag na ku nekk ñëw xool fu mu dëkk ak lu muy liggéey te lu baax la triché wut lu mu liggéey am mën ragalul fu mu jëm man de maa ngi koy sant di ko gërëm amuñu fayam nag macha allah Thierno jërëjëf jërëjëf mu mel ni euh, mbir mi euh, xalif général euh, Soundiata Keita dafa am lu doy waar maanaam damay mel ni damay dégg moment bi soxna si di wax tey moom la kii di wax donc est que da ngeen waxtaan seen biir euh, maanaam leen dal yéen ñaar ñëpp la kon waxtaan ngeen seen biir ba gëm ni carrément lii lu réel la parce que lii affaire bi ni mu la doon dikkee noonu la koy dikkee garab bi nga doon utiliser moom la doon utiliser. donc kon affaire bi yaakaar naa ni boo jàppoon ne Thierno da lay nax euh, bu la kii nettalee bosam di nga dëgg di nga gëm li la Thierno doon wax. tey lan nga xalaat ci loolu yow. <laughs> bismilaahi rahmaani rahiim asbilah min seytaan maa ngi nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan euh, liy firndeel li sama wujj bi di wax rek mooy que ni lu gën a teer moom mii xamutoon ne ñëw naa ci Thierno kon tey su waxee di dëggal li dëggal li nga xam ne mooy version bi ma waxoon te parce que kon li muy wax dafa nekk dëgg li ma wax nekk dëgg xam nga ñaar ñu yëgoowut wax même kàddu bi mm-hmm. loolu mooy wane ne kon ñoom ñaar ñëpp li ñuy wax dëgg la mm-hmm. su waroo woon mm-hmm. ñu ne ah kon am na kenn ku ciy wax dëgg am na kenn ku ci wax lu waroo sama problème nekkul yéen ñaar xam a wax dëgg wala non non dama lay expliquer leen ne yéen yéen seen bopp yéen kenn waru parce que yéen moom laa lay expliquer nii moom laa bëgg a wax askan wi ne leen ñun ñaar suñu yëgoo woon xëy na mu nekk ñu ne ñoom ñaar dañ ko yëgante mais bañ demee ba yëggantewuñu rek kon war ngaa xam ne kon li ñuy wax ni lu leer naññ la lu leer naññ la ndax moom mii man sama ngénte la njëkk a fexeel nekk ni carrément ngénte bi du am ma tëdd gént ko gis ko woo suñu kilifa wax ko mu woo Thierno wax ko Thierno ne ko ah mu ne ko ah mu ne ko baax na ba ngénte la ngénte bi dina am ci jàmm ak salaam ngénte bi am si jàmm ak salaam bi ñuy ngénte sama wujju bii ma géntaat leen ñu ne ñu ah pare ngeen ci seen ngénte bee de waaw ñu ne ngi waajalaat bay ba ma jàpp bañ jàppaat leen soobee yàlla ngénte bii nii du am. ma ne leen ah ñu ne ma waa ñu wan ma ay sunguf ay butéel ak lépp liñ war a indaale ci affaire bi. lépp ci gént la ma ñëwee. ki nga xam ne moo ma ca wan ginnaaw sax keroog daf maa wan kanamam laañ ma leer ma naañ ma xam ne kii la mu ne ma carrément butéel yi yëpp dina ñëw te soobee yàlla dinañ ko def. Hmm. dinañ posone lekk yi. Hmm. Hmm. ci lañ delluwaatee si Thierno. suñ woowee suñ kilifa mu ñu àndaat ñu ñëw ci ceer Thierno. te defe naa ne ngénte li amul ngénte gu ko dàq. def nañ suñ ngénte ci jàmm. ñoom kay ñoo ci amoon problème ci ngénte la ñoom ñoo fa xatoon ndax lépp luñ ko naroon a def rek yàlla defal dañ ci sutura. defal dañ ci sutura kon na ñun amuñu fayam. yàlla mi am fayam yàlla na ko yàlla fay. ndax vraiment fi ñu jógee lëndëmoon na lool. mais instant yi ñun ñëpp leer na xëy na nag. li sama wujju wax rek doom yi góor yi moo nekkoon problème xëy na. waaw ah, yéen ñaa ñëpp ñun ñaar ñëpp doom yi góor lañ am. te suñ jëkkër mu ngi doog am doom bu góor mu amu ko woon. xëy na tamit loolu moo nekkoon problème bi. Hmm. loolu moo ñu gënoon sonal. Hmm. ndax moom mi accouchement am amul luñ mu ci dajut. Hmm. sonn na ci sonn na ci suñ jëkkër sonn na ci. vraiment sonnoon na sonn goo xam ne ñu ñëpp a tiitoon. waaye grace à Thierno yi ak yàlla suñu borom yàlla def na ci sutura. ba nga xamante ne nii lépp instant yi macha allah ba ñu tal ngénte ba ngénte ko si jàmm kon alhamdulilah kon jërëjëf Thierno. ñun Thierno daal amuñu fayam. waa Sénégal nag ñu wax leen ne lii du ay naxe du ay caaxaan ndax bu doon caaxaan la kon duñ toog fii di wax. duñ dem ba toog ba uuf suñuy doom indi ko fii nii tey. ndax tey jii bu nekkuloon ak Thierno. ah gëf foog moo ne man dinaa toog fii mag sa wujj bi ñu gàddu suñuy doom indi ndax métti na torop bëggoon nañ xam tamit li soxna Asi wax parce important la mooy yéen tey jii nii lan moo waral seen teewaay fii tey ginnaaw doom yi juddu nañ loolu lañ doon bañ ëmb bi génn ngeen ci loolu lañ doon bañ génte ngeen loolu lañ doon bañ ginnaaw loolu lépp amee lan moo waroon seen tànk tey comme li soxna Asi laaj. suñuy tànk tey de defe naa ni ñëw boot si suñuy doom la ndax wasin ëmb ak wasin lépp ab étape la mm-hmm. boot tamit dafa bokk ci étape ci cursus su xale ndax si boot boobu lu nekk mën na cee xew kon moo tax bañ demee ba échappé ci étape yooyu yëpp yëpp ñu rëcc yooyu yëpp ah ñu ne rafet na ñu ñëw ci ki nga xam ne moo ñu jàppale woon bootal ñu suñuy doom suñ jëkkër am xalaat bu rafet boobu ah ñu àndandoo ak moom tey jóge ko sori ñëw fi pour mu bootal ñu suñuy doom si ñu wàccee yéegal ak jàmm wàccee jàmm loolu moo nekkoon suñuy tànk waaw d'après témoignage yi nga xam ne ñii ñi fi ñëwoon tey dégg nañ ko mu nekk témoignage yoo xam ne c'est émotionnel donc ñoo xam moo xam ne jëlee nañ ko fi ay kàddu wax ko ki nga xam ni mooy xalif général pour médecine traditionnelle mu nekk loo xam ne mën naa ne lu lu bànneex la ndax ku ëmb ay weeri weer yaakaarul woon doom boobu ki xam ne mooy xalif général kii médecin def ci lépp loo xam ne ba njaboot googu noonu tey judd ci jàmm ak salaam ba tey ñu ñëwaat toog fii di témoignage bi def lu dul laajaat nag mooy papa Thierno ban sentiment la am ak tey ban yëg am lii neex tey nga taxaw nit ba mu mucc ci jàmm ak salaam ñëwaat toog di la témoignage lii tamit wax dëgg yàlla moom am na ci ay kàddu yoo xam ni war na ko cee mën a sànni Papa Thierno moo lay rek nga sànni si ay kàddu tey loo yëg. waaw alhamdulilah rabbil alamin soxna Asi dama naan sant yàlla bu baax a baax ñu ngi yonente bi ndax lépp lu am yàlla la yàlla suñu borom may nañu doole ak kàttan ba yàlla def lii am tey tey tey sànq soxna si sànq wax na ko ci biir wax yëgoowuñu woon mm-hmm. moom moo fi njëkk a ñëw amoon problème yaa ngi dégg ba mu amee problème dem muy ne kii xale bi bu fi judd yan dëmm ñoo ko wax maamu xale bi maamu xale bi dëmm la dëmm bi nga xamante ne international la dëmm bu am doole la waaye nag daje na ak kan papa yi jinne yi hmm? kuy duma dëmm yi kooku mooy kan mooy Thierno Moule la xalif général kullu médecin traditionnel defe naa ne démb rek laa fi jàpp benn jinne hmm. duma ko tuubloo ko tuddee ko kan maa ngi ko tuddee Macky Fallou Soundiata Keita. dafa am benn affaire bu am démb. waaw baal ma dama lay dagg parce que foofu dafa important. yow nag danga may dagg rek waaw parce que boo dee wax da nga naan mm. dama gis ni léegi jinne yi waxatuñu xalif général ku li médecin traditionnel ne lan la Soundiata Keita. kon est-ce que bàyyi xalif général bi te wax Soundiata Keita directement. waaw xam nga nga waxal sa bopp nga bàyyi ñu waxal la moo gën n'est-ce pas yow li nga wax nii defe naa ne démb jinne bi loolu la wax. waaw femme bi jógee Amérique aussi lool la wax. damay bàyyi ngeen wax man du ma wax man maay Soundiata mais damay bàyyi yéen ngeen wax. ma man bu ma ne dee laajati man dama ne laa lan Soundiata Keita. waaw defe naa ne démb si interview femme bi jóge Amérique nee na. Euh, yéen yéen bàyyi woo leen xel ci jinne yi Thierno Moule di jàpp. Hmm. Thierno Moule jinne bu mu jàpp soxna Asi. Euh, jinne bi da naan ko yow yaay Soundiata Keita. Hmm. defe naa ne loolu dégg nga ko Pape si. moo tax ma a loolu moo tax ma dagg te yow si sa bopp sax boo ma interview da ma naan euh, Soundiata Keita. Thierno Moule man yàgg naa wax loolu. waaw. <laughs> nga baal man nga kon waaw ma leen waaw. lii dafa kontaan dama kontaan ci lii. Hmm. parce que tey maanaam tout temps kii juddu tey. suba mun nañu yor réew mi. Mm. suba mun nañu jiite. Mm. mun nañu nekk suñu imaam. mun nañu yor réew mi. tey dëmm may ne noonu du fi amee. ñii daal dañ leen war a rey ñu dee. pourquoi fan lañ ko teg mais est-ce que brigade dëmm am na commissariat dëmm est-ce que am na Pape Sidi laaj naa la loolu est-ce am na. waaw gisaguma ko de te yàlla moo gis. waaw mais loolu kii nappe ma. mais am na <laughs> laaj ma loolu fu mu amee. Ah, fii fan. kër Soundiata Keita waaw birgaadu birgaadu dem muy am na mooy kër Thierno Moule Soundiata Keita comme ni nga ko waxee euh, ñu ne kii du juddu liir bi maanaam ñu jàpp yaay ji sonal ko sonal ko soppaleeku jaan moom dëmm bi goro bi soppaleku jaan ànd ak beneen xaritamu dëmm soppaleeku jaan dugg si biiru ndaw si nara a lekk xale bi ci biir biir bi seen kilifa woo ma mu ne ma Thierno ah dëmm bi ci boppam uti na wallu wallu bu mu uti soppaleku nañ jaan dugg nañ ci biir soxna si bëgg nañ faagaagal xale bi Thierno Moule lan ga ci xam ma ne ko ci kattanu yàlla dinaa def intervention ma def intervention def lu may def soxna aas yi def lu may def mm-hmm. yaa ngi dégg Pape Sidi ba ma defee li may def yàlla def xale bi mucc mm-hmm. xale bi muccoo ñu ne du duñ ko ngénte eh. ma ne c'est faux dañ koy ngénte dëmb bi dafa am doole ndax nag moom mooy maam xale bi moom moo jur papay xale bi neexul nag maa ngi jéggalu waaye nag dañuy wax waaw ndax man bu may xeex du ma du ma faale dara du ma xool dara yaa ngi dégg ma def intervention xeex dëmb dëmm xeex bu metti maanaam face à face corps à corps duma leen duma yi métti ak suma jinne yi mooy faajuru naajuru aljuma bent ne binte yi ci amoon ne koni damaka defe naa ne soxna si boppam nee na bu ko dëmm yi attaqué su ma jiney lay gis. ñu mhm. soppaleeku sol yëre xonk ñëw du ma dëmm dëmm daw. <laughs> suma baat bi nag dafa dee ndax dëmm dem dama fi amoon attaqué ak jinne bu doy waar. gis nga tey baat bi dama xaw a dee. Mhm. waaw nañu comprendre mais coono la loolu coono kese la xam nga man bu may def émission. <coughs> ak jàppee jinne damay joxe énergie. Mhm. sant yàlla ma def intervention ba xale bi juddu tey. ba xale bi juddoo ñu ne duñ ko ngénte oh. soxna Asi uh-huh. ñu ne duñ ko ngénte ma ne loolu c'est faux mm-hmm. ma def intervention ba yàlla def xale bi judd na ngénte nañ ko ngénte bu neex mm-hmm. Mm-hmm. tuddee ko tamit seen kilifa bi muy suma xarit yaa ngi dégg ba ñoom ñu ñëw fii def témoignage defe naa témoignage yooyu gis ngeen ko uh-huh. ñoom it ñu nekk ay nit yu baax ñëw def témoignage yaa ngi dégg yàlla def tamit beneen wujjam bi aawam bi dem may ne aha kee rëcc na xaaral ñu ñu faagaagal kay kay dégg nga wax na bi mooy première taawam ku góor waaw dëgg mooy ne noo kii du fi juddoo ñu wax ma ko ma jaaral fi ma jaaroon fajiru naajiru aljuma bent neen bin fi ane koni ci amoon koni dama kaa def intervention kooku juddu ba kooku juddoo nag ñu ne nag nii xaaral ñu fexe nag poisonné leen poisonné leen nag benn yoon ñoom ñëpp ñu dee ñoom dem muy ñoo wax loolu kan moo ko gis mooy soxna si beneen wujjoon bi ndeysaan moom la gaa commencé na sumay bagage lépp lu noonu yi nar a fexe sama jinne dañ ko koy won sama jinne won ko ko mu wax ko boroom këram ndeysaan wujjam bi sax comprendre loolu nu mu demee moom it ku baax la hmm. ñoom ñaar yàlla na yàlla jubale hmm. parce que nii dafa rafet aussi wujju xoolal ñoo ngi toog di def lu hmm. rafet lii Sénégal war nañ euh, jël leçon ci ñi ñaar ñi ay wujju la ñu mais gis nga macha allah ah kontaan naa ci ñoom ñaar yaa ngi dégg jinne ne dëmm yi ne non ñii dañ leen di pasale ñoom ñëpp ñu dee ñu préparé ñoom dëmm yi mag yeeg yëpp dëkk ba ñoom ñëpp ñu préparé indi seen i lekk ak préparé seen seen seen lépp ñii daw ñëw ci man ñu ne ma Thierno ah tiit nañ ñoo ngi bëgg a ngénte mais gars yi nee nañ bu ñu ñëwee dinañ poisonné dinañ posonné ma ne ko incha allah ci kattanu yàlla ma wax ak suma jinne yi faajiru naajiru aljuma bente ne mbirtiyaane koni caamu ne koni dama kaa jinne yi ne ah, ñoom amuñu jom rek bu ñu amoon jom ñoom ñu waxoon xale yi duñ juddu xale yi judd nañ ah aywa ñu ne tamit xale bee du ñu ngénte ngénte nañ ñu ne kii tamit duñu ko ngénte mu ne ma ñu ne ma ñii dañoo ñàkk fay waaye xaarale yaa ngi dégg ma defaral kii lu ma koy defaral ma jox ko ma ne ko boo demee lii def ko ci kër gi lii aj ko fii lii takk ko fee lii defal lii defal laa mu def ko laaj ko sànq ba mu ma ñëwee nee na ma dëmm yi ba ñu ñëwee nee na ma ñi egsi ci kër gi sax nee na ma champion bi ci boppam dëmm champion bi ci boppam moom egsiwul ci kër gi dafa am beneen fu mu dem làqatu ndax am ay problème laaj ko ci ba ñëw. Euh, balaa may laaj ci loolu dama lay xamal ni bi yow a. Euh, Kouba. waaw di wax lan la demee. waaw dëgg la man jox na bi ma ñëwee bi ngeen début comme ni mu ko waxee. amul ak parce que moom waxuñu lii ak lii la ñun ñoo laal bagage yi ñu gisal suñu bopp. Hmm. su sama su su kii nii nii mooy. Euh, deuxième femme bi. Mhm. moom bagage yi moom da koy woon carrément. Mhm. du ko soo ne moo ñu wax lii ak lii la. moom bagage yi boo ko laalee. Mhm. du la wax dara boo laalee bagage yaa gisal sa bopp. bagage boo ko laalee yaa gisal sa bopp. lu ne fa nga kenn du jeex. Euh, ki nga xam ne mooy sama waajur ci boppam sama waajur bu jigéen. moom ci boppam bu daan ñëw ci kër gi lay nekk. te affaire bu mag bi yëpp moom la. bu mu ñëwee cër ne ma lii fii nga koy def lii fee nga koy moom bu mu ñëwee nagul toog ci kër gi parce am na ay problème sax am na ay problème yu garaaw kër gi moom nangu fa dugg parce que dem na dal feneen même reer ak añ yëpp dañ ko indil foofu maa ngi koy bàyyi nii foofu mais kër ga ñun fi nga xam ne fa lañ du fa am ay seconde mu génnaat waaw te fa def ay seconde fa la nekk fa la daan fanaan fa def lépp avant ñi nga xamante kenn bu muy ñëw fa la daan nekk moo sama benn rakk ñoo doon fanaan hmm. mais ñëw na fa deux fois ci ngénteelu kii nanguwul fanaan foofu dafa dem dal feneen. kii ngéntam itam nanguwul fa fanaan day dem parce que man mi daa man journée bi beneen laa ko gis. du sa foofu lañ ko yóbbu du rek. Euh, dafa am benn affaire boo xamante ni laajoon naa ko soxna si. Hmm. muy ma ne ko yow yow ak sa jëkkër. Hmm. nga xam ne sa yaay yaayam moom la ñuy wax nga bokk ak moom benn kër. bokk moom benn néeg benn lal lan ngi ban yëg ngay am mais yow tey dama lay laaj yow mi nga xamante ne sa yaay moom mooy waral lii yëpp tey ban yëg nga am yow. ah man de wax dëgg mm-hmm. que xam naa ne affaire yi may mm-hmm. naa fu mu moo ma ci benn. loolu moom amu ci benn pression. non mais maanaam lu mu def quoi boo toogee psychologiquement yow kese nga toog nga xalaat ni sa yaay moom moo bañ nga am euh, doom moom mooy jàpp say doo jabar di leen sonal mooy tax nga yàq xaalis di déplacé wu dëkk dëkk pour dem laal ay garab yow lan nga lay def loolu non début bi bi ma ko bi ñu ma ko waxee daanama travail mais instant yi mis naa ko moom mis naa ko parce que li gënoon garaaw mooy ngay dem fii dem fa xamoo comme kii xam naa ko loolu sant yàlla lépp ca la donc maanaam bi nga doon da nga dem ci ay sëriñ quoi non daanaa dem ci ay sëriñ ñu may ñaanal hmm. mais fii moom fii amul moom hmm. ok loolu asi waaw dafa mel ni Mbaye Sidi ñoo ko di dundoo témoignage yi nga xam ne ñii génne nañ ko ak kàddu yi nga xam ne wax nañ ko. di lañ naan weddi gis bokk si. li nga wax sànq rek laay dëggal jaratul xalif général mën nañ dem ci tur bi direct ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo yor wàllum communication bi ah man de dootuma waxati xalif général hmm. suñu jote bi moom laay dëggal. Hmm. wax fa dëgg yàlla ndax lii nii ay témoignage yoo xam ne yu positif la. Hmm. amul lu si doomu aadama di teg. li mu wax la jarul dem ci ay sëriñ dem fee dem fee. Euh, aaw buru këram tey ak affaire yi ni mu demee nii doo toog si yàgg mu lay travail. si affaire bi xaw na ma travail si début bi bi ma ko xamee mais actuellement dafa mel ni na mooy sama gardien. fu mu nee nii amatuma benn fu may tiitee amatu fu may ragal dem. ndax am naa ko may porté je sama njaboot. Euh, Soundiata. waaw naam. <laughs> cey funkal su ñettaay ngoog euh, man li ma jaaxal mooy képp koo xamante ne teg na tànkam fii ci biir kër dina indi benn baat boo xamante ne jaaxal doomu aadama yi mm-hmm. euh, yow tey jii nii ban njëg nga am ak ban ban ban ban taxawaay nga mën a ngay taxawee tey ba sénégalais yi tey euh, maam seen gis la ak yow yomb waaw gis ma nag du yomb Pape Sidi defe naa ne gis nga téléphone yaa ngi sonné. monde entier dañ may woo fu ne la ñuy jógee. am na ñu jóge France États-Unis ñuy jóge Mourtane ñoom ndeysaan ñoo ngi jóge ba Kaolack. yaa ngi gis gis ma du yomb. waaye nag jafewul aussi bu la ko jarale nga fajaru ñëw rang di nga gis Thierno Moule. Thierno Moule ñëpp la fi nekkal fu ne lañ may woowee ndax calculer lii ma def nii tey. tey bu doon coupe dafa am defe naa ne dañ doon yëkkati coupe jox ma tey ñaari tout tànk ñaari xale gis nga ñaari xale yu góor dëmm yi nar leen lekk lekk leen ñu dee hmm. dootuñu exister hmm. seen yaay ëmb neuf mois sonn feebar seen papa sonn du nelaw guddi du nelaw bëccëg hmm. ñu nar a juddu noonu dee calculer loolu ma taxaw def intervention ak suma jinne yi defe naa ne bu yemoon fii rek lu ko woykat bi waxoon mu mu neex. mu neex. Hmm. ndax defe naa ne yàgg ngeen seetaan tele yàgg ngeen déglu. mais lu mel ni mosul am. Hmm. ñaari wujj. aawo ak ñaareel. kenn ku ne ëmb. Hmm. goro bi ne ñii duñu fi juddee. dama leen di lekk. ma taxaw ma ne loolu c'est pas vrai c'est faux. Mm-hmm. ma def intervention. su ma jinne yi mm-hmm. mooy faajiru naajiru aljuma bentene bintiyaane koni caamone koni damaka mm-hmm. ak ñoom Mouhamed defe naa ne jinne bi ma fi jàppoon ba jalaba defe naa ne démb moom moo jàppoon fii beneen jinne bi kon defe naa ne man li may def man Sénégal laay liggéeyal man Afrique laay liggéeyal man adduna bi laay liggéeyal moo tax nag Pape Sidi moo tax yematul léegi mm. ci parcelle Asine unité 19. yëmatul léegi ci Sénégal ndax dañuy dagg seen i billet am na démb defe naa ne jinne boobu ma jàpp démb. Mm-hmm. soxna si nga xamante ne moo ko indi États-Unis la jógee. Mm-hmm. defe ne fii chaque jour nit jóge États-Unis Canada New York Mauritanie partout dans le monde dañ fay jóge di ñëw. Mm-hmm. defe naa ne lii nag lu ne fang kenn du ko jeex. foofu tegal foofu sa loxo sa baaraam kenn ma ñëw foofu parce que gis mooy wax. Mm. du gis ñëw fii di buuxante wala loolu. dama gis sëriñ su bëri di tukki dem fu nekk ci àdduna te xamuñu dara. Mm. man maa de man baay Fallou Thierno Moule maa ko wax. xamuñu dara. Mm-hmm. tey am na suñoo xam ne dañ laa bëgg a gis. mais seen jug dafa jafe. ndax la leen téye ma nga foofu ñu nekk. Mm-hmm. am na suñu bëri ñoo xam ne bu ñu soñoon suba suba. su jël bee ñëw. mais leen mm-hmm. mooy ay rab. ay jinne ma mënut ñu dellusiwaat. te yow yaakaar naa ne tey doomu aadama yi soxla nañ la. parce que fu nekk lañ commentaire yi sa vidéo yi. Mhm. ñu nekk États-Unis bëgg nañ nga ñëw. ñu nekk Allemagne bëgg nañ nga ñëw ñu nekk mhm. Paris bëgg nañ nga ñëw. même Espagne. foofu nag laay waxee maanaam ñooñu nan lañuy def tey ba gis la est-ce que yaa ngi waajal ay tournée. waaw alhamdulilah Pape Sidi. Hmm. yow dafa mel ni da ngay mi sama langue xaw ma mu am na benn femme ñoo ngi Espagne. Hmm. mu ne ma Thierno yow da war a fexe nga ñëw Espagne parce que li ngay def. fii dafa bari fii ay rab ay dëmm ay jinne daf fi bari hmm. ma ko ci kattanu yàlla boo ma invité boo leen invité dinañ ñëw Amérique chaque jour ñu woo ma ñu ne ma Thierno da nga war a ñëw hmm. bëgg naa nag après dinañ fi jóge def tournée internationale mooy dem ànd ak yéen équipe bi su ko defee ngeen di filmer li may def gars yi nag loo wax ñu sàcc ko moo tax du ma du ma continuer wax di hmm. sëriñ ci loo wax ñu sàcc ko pirate ko bëgg naa ne ñu def tournée bi nga xamante ne cinquante deux états yëpp dañ koy wër biir États-Unis bëgg naa sama première génn États-Unis la ñu jubali jinne yi fa nekk yi ma ñëw tuubal leen defe naa ne démb yaw Pape Sidi mm-hmm. dégg nga lu jinne bi wax mm-hmm. mu ne man maay tuubalkatu jinne yi mm-hmm. n'est-ce pas dëgg la la wax fii la ma fekk naa fekk yow loolu mais Pape Sidi na fii la ma fekk waaw bëgg naa nag jinne yi gën a mag ci ñu nekk su may taalibe loolu nag incha allah waa États-Unis nañu ma xaar ah. nañu xaar invitation yi bu ñu ñëwee rek dinañ maanaam dinañ faxa suñu dem ndax nag suñu génn yombul. Mhm. man mi sama soxla sax pour ma lijjanti ko problème la. moo ngi nii sama benn conteneur ñëw na su may oto ak su may bagage ñëw mais pour ma dem jëli ko problème la ndax du ma am jot. Mhm. damay am yitte su ma yitte bopp du ma mun a dem. Mhm. Pape Sidi li nga wax c' est important. dinañ def tournée internationale dinañ dem jëli jinne yi nga xamante ne ñooy sonal askan bi. moo xam muy États-Unis muy muy France muy muy muy muy Espagne fu mu a nekk ci àdduna bi incha allahu dinañ waaj yooyu ñëw parce que nu problème yi mel nii rek ñoo fa nekk xam nga tey ñii am nañ possibilité ñëw am na si keneen koo xamante ne mi ngi dëkk Fatick waaw maa ngi dégg commentaire mu naan Thierno Moule kañ mm, am na si ñeneen ak ñeneen ñu nekk ci région yi fii Sénégal Thierno Moule kañ lay déplacé wu parce que ñoom xam nañ ni li leen téye du nen. dëgg la te nag dooguma la jinne yi ñoo leen di te jinne yi xam nañ ne képp ku jëm si man. ah ñoom du ñu neexle. doo ñëw soxna si ma jàppoon euh, ku fi ñëwoon démb magam États-Unis la jógee dagg billet ñëw ba mu ñëwee ne ko waxu ko day ñëw ci man de daf ko nax ne ko nañ dem. Hmm. ba ji ba soxna si ñëwee jinne bi ba mu duggee suma kër jinne bi munul génn. Hmm. parce que jinne yi bu ñu xamee ne fii nga jëm si. Mhm. dañ lay baare ba ba doo ñëw. Hmm. parce que xam nañ ne boo ñëwee dañuy yàqule. Hmm. loolu tamit na nit yi bàyyi xel loolu ci ci ci loolu. am na ñu bëri ñuy bëgg ñëw ci man jinne yi ñoo leen di kale. parce que xam nañ ne bu ñu egsee ci man jinne yi dootuñu neexle. loolu leer nañu la loolu nit yi na bàyyi xel ci loolu Pape bi defe naa ne dëmm lu doy waar la. calculer tuuti tànk yi nga xamante ne tey seen papa ngi nii ak seen yaay. léegi seen goro bi bëgg ñëw lekk. liir yi loolu la fa métti nañu waxante dëgg. loolu lu doy waar la. trop léegi yow loolu. loolu loolu yéen nan ngeen gisee loolu. Hmm. liggéey bu rëy bi ma def fii nan ngeen ko gisee. xam nga ñun yàlla rek moo ñu mën a fay. c'est sûr. tey bëri na sëriñ nga xamante ne ñemewuñu toog ci télé ak rajo di wax dëmm. Hmm. ndax bu ñu ko waxee guddi dëmm yi fekk leen duma leen dumay métti. Hmm. man am na sëriñ yu bëri nga xamante ne ñoo ngi fii dañ doon faj ay ay dëmm ñii ñii. dëmm lekk nañ seeni i doom ñii dëmm yi rey nañ leen yaa dégg moo tax léegi fooy wax waxu dëmm sax dañuy taf seen nopp ndax li lii leen dëmm yi def man nag dëmm yi ma ndax li ma àndal dama fekk fii benn jour nga jàpp benn jinne waaw mu ni jinne may mun a ndiir la tudd may mun a ndiir waaw nga ni ko yow lan ngay def sama kër mun la dama juum nga ni ko euh, yow naa sëriñ mës na laa def lii mu ne sëriñ moo mës a def ma rey ko nga ne ko ndax man mun nga maa rey mu ne koy ñëw këram di daanu noo koy reyee donc mu nekk wax ju doy waar nga jàpp fi benn euh, jinne tuddee ko Macky Fallou Soundiata Keita lan moo tax i Fallou Soundiata Keita muy ñetti tur yoo xam te ni ñetti tur yooyu yëpp ay tur kilifa leen kilifa aada kilifa cosaan mhm. ak kilifa diine maanaam dafa doy waar daal su mu mel ni ñetti photo Thierno Moule dafa ñëwaat. maanaam yu bëri man damay xalaat yu bëri yoo xam ne danga koy def mu jaaxal ma trop. Mm. est-ce que mën nañu leeral foofu tuuti. waaw alhamdulilah rabbil alamin euh, jinne bi ma jàpp démb defe naa ne moo ngi dëgg Fadia. cité Fadia Maris Maris ah, Maris Maris. la dëkk ci lac bi. Mm. ci lac bu Maris bi foo la jinne bi dëkk. jinne bi am na téeméeri at ak benn. sikkim bi moo ngi ñëw ba ci ba ci. ba fii nee na ma man mag laa yaa ngi dégg. Hmm. nee na am na benn sëriñ bu doon faj soxna si mu dugg nee na dafa buggoon taal maanaam dafa buggoon lakk sëriñ bi ci biir oto bi. Hmm. dafa naa ne loolu démb dégg nga waaw vidéo yaa ngi daw. vidéo yaa ngi nee na en même temps kat yi jël na sëriñ bi mu def ko accident maanaam së sëriñ bi di daw ci àll bi mu ñëw taxaw ci digg tali bi sëriñ bi def choc yaram bi yëpp di yaram bi yëpp di tëccu. kooku mu ne ku ko jege mu ray ko. démb ma mu ñëwee suma kër. dafa dafa bañoon jinne bi man jàppoon fii bu njëkk mu tuddoon kataba jalaba boobu ma tuubal ko tuddee ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam démb suma jinne yëpp faajuru naajuru aljuma benn jinne yi ma yëpp ñoom ñoo ne léegi yow Mouhamed Mouhamed Sow mooy jinne bi mu tuddee Mouhamed Sow mm. ne ko demal lijjanti kii ñun ñoo ngi toog nii ñu dem jinne bi lijjanti paa bi te te jinne bu bu muy lijjanti moo ko mag foofu mu lijjanti ko fii dafa naa devant écran bi devant caméra bi mm. mu wax ak jinne bi naan ko Mouhamed bàyyi ma toogal nangam nangam Mouhamed ne ko naanal ndox mi mu ne du naan defe naa ne loolu jamais fi amul fenn mm. mooy waral man su ma jàppee jinne daf may liggéeyal daf may tarbiyu mm. dama recruter ay jinne yi nga xamante ne tay tay tay tay tay tay eh? dama yor ay arme armée armée bi nga xamante ne ay jinne lañ man li ma yor ci jinne dafa bari dama recruter ay jinne def leen ay taalibe tey ñu nekk suma armée man tey tey ñaanu ma ko yàlla tey Sénégal bu amoon problème tey exemple ak beneen dëkk mun nañ yëkkati jinne yi ñu dem jàmbaral dëkk boobu te bu ñu demee dañuy def ñooñu dem loolu misaal la rek hmm. ñaanuñu yàlla loolu mais loolu misaal la kon man loolu moo lay wane ne man su ma jàppee jinne dama lay dama lay dama lay téye nga nekk suma taalibe hmm. defe naa ne loolu démb dégg nga ko hmm. bi nee na du ma maanaam bugguma fi nekk. Hmm. bugguma naan sa ndox ndax bu ma naanee sa ndox mooy nekk naa fi. Hmm. ma ne ko nag nga naan nga ñàkk naan fii ngay nekk. Hmm. ma nekk ak moom fii nekk ak moom fii duma ko mu yuuxu lu ne mu dugg ci. mu newoon na du bàyyi ndaw xale bu jigéen bi Aba Kayta newoon na du ko bàyyi ma ne ko nag danga koy bàyyi force su ma jinney sonal ko sonal ko sonal ko sonal ba mu mujj tuub mu tuubal ko tuddee ko Mati Fàllu Sunjata Kayta li ngay wax gis nga ñetti Thierno Moule yi. moo toj dëkk bi loolu baatin la Pape yi defe naa ne Macky mooy suñu njiitu réew mi. Hmm. defe naa ne El Hadj Fallou Mbacke defe naa ne ko kenn ku ne xamante ne ndeysaan xaritu Mawlana Cheikh Ibrahim la xaritu xaritu Baye Niass la woon. Hmm. defe naa ne koo kilifa la bi nga xamante ne amul lu mu deful fii ngir l'islam ngir diine ngir Sénégal. Hmm. kon kooku bu ñu ko tuddewee jinne loolu defe naa ne ndam la. defe naa ne loolu ñëpp dinañ kontaan ci loolu. à passage di nuyu waa Touba ndax nekkoon naa fa. dégg bu baax a baax euh, di sant yàlla bu baax ba pare. tuddee ko nga di Soundiata Keita xam nga jine bi moom lu mu yenu moo diis mag la moo tax tuddee ko noonu hmm. kon nag sant yàlla bu baax a baax ñii tey xëy indi seen doom yi pour ñu bootal leen gannaaw ñaan nañ ba yàlla def ñaan bi antu na ba xale yi juddu nañ ci jàmm ak salaam ba dara wokk leen dara xuriwul leen léegi nag ñoom ñu am ngor ah ne xaaral ñu dem si Thierno Moule mu mu bootal ñu xale yi loolu it kontaan nañ ci loolu. soxna mm-hmm. Asi. Pape Sidi. ma laaj sama dernière question rek ndax sànq dégg naa fi li nga wax Pape Sidi muy affaire tournée ak ñi nga xam ni tey gi dañu bëgg dañ bëgg a jot ki nga xam ne mooy Pape Thierno ñenn ñi mën nañ ne de sori gi ñu sori moo tax ñenn ñi ñoo ñu ñëw mais am na si ñoo xam ne ba tey ñëw ñëwaguñ. Mm-hmm. parce que exact dañ xamul am na si ñuy dute. est-ce que mm-hmm. fii méttiwul est-ce que pour nga ñëw si kër Sunjata méttiwul mm-hmm. est ce que du la laaj somme bu bëri parce que ñoom am na si ñoo xam ne dañ dem ci yenn sëriñ yi ñu nax leen yekk seen xaalis mm-hmm. am ñoo xam ne ñu lañuy laaj yenn somme yoo xam ne seen doole àttanu ko parce que cas social dafa bëri tey jii moo doon laaj Pape Thierno social boobu noonu ñenn ñi nga xam ne ñemewuñ ñëw loo leen di wax say buntu tey waaw li ñuy wax ubbil na ñëpp suñu buntu defe naa ne ñun li ñuy def ñëpp a ngi koy gis mm-hmm. ñoo ngi dimbali nit ñu suñu wàllu liggéey waaye nag dafa am li nga xamante ne mënul ñàkk xam-xam ak baatin loolu maanaam loxo kese naxiti bay defe naa ne boo demoon ba ci àll ba fekk benn garab a ngi taxaw nga def nii gisoo kenn gisoo kenn nga yaakaar ne yow rek ak garab bi yéen a fa nekk nga dagg ci garab bi jël xob bi bëgg ko jariñoo du la jariñ dara soit da ngay jënd garab bi yaa xam dugub nga koy jëndee yaa xam faatiya yaa xam ceeb yaa xam xal yaa xam loo ko mën a jëndee ndax garab bu ne dafa am luñ koy jëndee ci baatin loolu moo tax aussi ku bëgg dara def dara defe naa ne hôpital sax même boo fa demee. da nga jënd ticket da nga jënd ordonnance. kon nag ñu sëriñ ci tamit baax na boo ñëw ci ñun nga waajal sa bopp. parce que ñun tamit dañu yor ay jinne yor ay ruuxaan. bu tey bu ñuy def intervention ci ay dëmm foog ñu génne ay sarax pour neexal jinne yi pour jinne yi mun a jóg dem def intervention gis nga ñii tey. ñaari xale yi nga xamante ne tey ñoo bokk benn baay. tey ñoom ñaar ñëpp dëmm de maanaam seen maam daf leen naroon lekk ñoom ñaar ñu dee. calculer loolu nu mu gravé calculer loolu ku def intervention loolu ba ñoom ñaar xale yi ñu juddu tey tey seen yaay kontaan seen baay kontaan man ma kontaan mhm. maanaam yàlla kontaan yonente bi kontaan calculer loolu ñii tey suba mun nañ nekk ay imam mhm. tey mun nañu nekk ay ay président mun nañu nekk ay nit yi mag kon defe naa ne sëriñ kenn mënu ko fay sëriñ nag bi nga xamante ne xam na lu muy def mhm. sëriñ nag bi nga xamante ne moo ngi def lu baax ku mel ni Thierno Moule defe naa ne kenn amul fayam Mhm. boo ko fayoon ay milliards sax du fay ndax ku lay ñaanal nga yokk ku lay ñaanal nga mucc ku lay ñaanal aar sa njaboot aar sa famille mhm. tey buñ la boo naroon dee ñu defal la ay ñaan yàlla mus muccal la musal la defe naa ne nag yoruñu garab bi nga xamante ne doo dee waaye nag tey tey ñii defe naa ne defal na leen garab gudd fan waaw parce que ñu woon ñun tey dëmm yi ne ñoom duñu fi juddu mhm. mënuñu yokk atu nit ah waaye mun nañ ñaanal nit mu gudd fan. mooy li ñu def nii defe naa ne loolu baatin lay loolu dégg-dégg lay laaj. Mm-hmm. defe naa ne ñii tey bu ma ci def loolu intervention dëmm yi nar a ñëw pasonné xew bi ñoom ñi naroon pasonné xew bi tey ñoom la pason bi daal ba nga xamante ne kenn ki chef bi nanguwul ñëw dafa am feneen fu mu dal loxo bi néewi nekkul ci jàmm kon defe naa ne sëriñ bu baax aussi kenn mënu ko fay. Mm-hmm. boo xoolee suñu mag ñu baax ñi parfois da wép dañuy wéetal suñu borom ñaanal ñaanal réew mi ñaanal askan bi. Mm-hmm. maanaam ñoo ngi def social waaye nag dafa am nuñ koy defee. Mm-hmm. nekkul ku ñëw aussi rek nga def. Mm-hmm. dafa am noo koy defee. spécial dañuy def ay sociale loolu c'est vrai loolu ci ñun la fekk baax. mais loo gis dafa am yoon aussi. c'est important ñu waxtaane ko ñu yi xam loolu. te damay dégg chaque jour nga naan euh, faj balaa moo neex. la nga war a génn nga génne ko même bu dee sama doole dama koy may sax mais la nga war a génne pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy def liggéey bi ñu génne ko chaque damay dégg ngay wax loolu ba benn jour am na liggéey boo doon liggéey sa bopp mm-hmm. dama ci damaa gis nga génne la mu la mu la war a génn ndeysaan waaw loolu moom nga ko seede waaw donc man man côté boobu damay gis ni xëy na sa doole nga mën a maye mm. waaye li am na loo xam te ne yow moomuloo ko dëgg la waaw kay loolu c'est loolu fekkee nga ko waaw loolu mun naa ne suñu mbiru bopp la. waaw mais damaa dem jënd li ma war a jënd. Hmm. ma ne la Pape di gis nga lii gis nga lii nga gis. ma ne la lii nag ñu toog ah, defandoo ko ensemble. waaw ñu toog defandoo ko ensemble. waaw kon man mi nga xamante ne maa nday mbind bu ma soxlaa ci ñoom. Hmm. dinaa fu ma jaar ak ñoom ngir suma aajo faju hmm. asantiment nag keneen bu soxlaa ci ah, man. moo wax dëgg yàlla yàlla rek moo ma tuy maa waaw waaw. te defe gis nga ko ci kanam rek la jëm. incha allah kon dañuy sant yàlla lii vraiment c'est importance dëmm dafa bari Sénégal boo nee dëmm ñu naan a ah unju bi nangam nangam ban a ah unju bi laay nangam nangam ñi lekk nit ñi tey normalement président bi dafa waroon def condamné à mort ñi nga xamante ne ñooy les sorciers collaboré ku mel ni Thierno Moule bu jàppee dëmm wala ñu fexe tëj ko tey ñiy jël paaka di jam nit ñiy agressé nit ñuy dee tey ñooñu ak dëmm yi ñoo yem àtte. Mhm. tey ñu dëmm yi tey amuñu amuñu tribunal. man damaa jàpp ni Bataillon Bélendé bi ak président bi condamné dëmm yi. waaw mooy yow mii toog xalif général Soundiata Keita yow moomu la. président li mu war a def mooy. waaw dooleel la. waaw utal la place boo xamante ne di nga fi mën recevoir doomu aadama yi di leen dimbale te yàlla tax maanaam mu dooleel la moom président. Ah. xam naa ne moom bu la président la benn jinne rab ak dëmm dootul taxawaal. xam nga dëmm yi ci Sénégal ñemewuñ ma. loolu loolu la yàlla dogal hmm. amul benn sëriñ buy toog di wax li may wax amul amuñu fi tam uh-huh. sëriñ maanaam dëmm bu jinne yi buñ jàkkaarloog sëriñu ñu rey jàkkaarloog man di jooy uh-huh. ma lay laaj nga naa ma Thierno mu ne li may laaj yaa ma ko gën a xam hmm. ah kon defe naa ne Afrique laa la wax hmm. Soundiata Keita mooy toog di wax ak yéen wax ji jeex na nag le wax di Manding mooy toog di wax ak yéen defe naa ne suma maam def na lu ne amul lu mu deful fii. Hmm. jàpp na ñay bi ray ko teg ko ci mbagam yëkkati na guy gi dem ñun ñun lu raw loolu la ñuy def ndax defe naa ne ku jàpp jinne di ko duma. loolu miracle la loolu. loolu maanaam defe naa ne loolu lu doy waar la. Mhm. te chaque jour ñoo ngi def yu bees rawatina nag tout tànk yi nga xamante ne tey suba war nañ nekk ministre war nañ nekk président war nañ nekk imam. Hmm. tey ñii da muy ne du fi juddu. te en même temps nag seen seen maam calculer loolu. Hmm. loolu dafa bëri chaque jour ñuy dégg kii moo lekk doomam kii moo lekk sëtam kii moo lekk rakkam kii moo lekk magam mais Thierno loolu nan la nan nan la mën a nekkee est-ce que loolu noonu dëggantaan ay mag rakk la ñuy doon wala doomam day la ñuy doon est-ce que nekkul lu rax ci famille bi. waaw day rax ci famille xam nga yow mun nga juddu ci famille xamoo xamoo famille bi yow nga nekk di liggéey comme moom tey xamul nu mu demee xamul lu xew jabaram yi xamuñu lu xew. tey bu leen yàlla xëcculoo ñu ñëw ba ci man tey. même moom am na ay magam ak ay rakam yoo xam ne xam nañ ni mu demee wala xam. ñoom xamuñu nu mu demee ñoo demee. ñooñu xamuñu lu xew-xew. ñii daanaka seen famille léegi samay taalibe lañu. ñoom ñëpp li si ëpp maa leen di aar maa leen di protéger. seen hmm. mag ñi kay ñoom ñooy affaire yi seen mag ñi ñoom ñooy problème bi. Hmm. waa yi mais ñoom seen maanaam famille bi. xale yi ak yooyu yaboot gi ñoo ñooñu amuñu problème hmm. parce que xaaj bi yëpp léegi su may taalibe lañu maa ngi leen di dimbali hmm. maa ngi def loxo ci ñoom hmm. bii moom defe naa ne mooy ñaari yoon yaa ngi ko fi gis yaa ngi koy jël <laughs> te man duma toog ak dëmm te jëfaruwul kon dalay leer na ni ñi ay nit yi set lañu waaye nag mun nga bokk ci famille bi nga xamante ne setuñu mais yow loolu du la très set mais moom lu mu def nii c'est important aar na boppam aar ay jabaram aar ay doomam barki démboo Njaay la indi ay waa këram yëpp xale yu ndaw yëpp ay doomam doomam yëpp lay indi fi ma ma protéger leen. Hmm. moom it xam na lu muy def. Hmm. ndax boo demee ba boo demee ba yeewu ci dara. waaw ah, kenn dootu la ci ndax da ngay moom instant bi dafa xam dara kenn ci ndax. loo xas ba yeewu. waaw kenn dootu la ci ndax. defe naa ne kii moom. Hmm. keneen la ñuy wax waaye kii ak njabootam moom. ala accu lañ. macha allah soxna Asi ah nga jox laaj ah, ku nekk ñoom seen dernière question. waaw wax yàlla. mën a tàggatoo ndax temps bi jaaree temps bi xoj nañu ba tax na fi la jaaree ku ci nekk rek ñu bàyyi la nga tàggatoo wax li nga xam ne mooy sa mot de la fin fii tey ma njëkk laa laaj yow sëñ bi nga joxe sa mot de la fin. waaw xanaa sant yàlla gërëm Thierno rek. Mm. parce que comme ni ko kii Spapsi di waaye sànq ay affaire de kii yooyu pour fay bi ak yooyu kii boo ko doon jox ay millions mënoo ko fay. Mm-hmm. parce que dégg nga intervention yi def danger danger la généralement. ki jege ci yow sëg moo lay bëgg a lekk kon donc intervention bu muy def danger la te moom mu ñeme ko kon kooku même lu a mën a laaj ci xaalis mën na koo fay kenn mun koo fay yàlla mi nga xam ne moo moo yor a fay yàlla ko yàlla fay mu yàgg fi loolu ti wér waaw nañ bu baax xale yaa ngi nii seen yaa ngi nii ñëpp ñu ngi ci jàmm sant nañ yàlla gërëm nañ ko sant nañ ko yàlla na ko yàlla yàggal fii mu ak wér mu dund ba dund sàppeeku yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ngir ngóotaan bi ñu am ci moom am na fu ñu commencé mais amul fu mu fu mu yem parce que Dakar ko ko mocc moo xam lu mu sax man tey lu ma mënoon am lu ma fi mënoon bàyyee du man du ma ko rëccu man su ma am àdduna li ci biir dinaa ko jox man su ma am àdduna ci biir jàll na ma ko parce que xam naa lu mu defal parce que wax na wax bu am importance ñii xamoo lu ñu doon suba kenn amul yàlla rek moo xam kon donc jaar jaar bi météo ak teete xool lu ñu toogee fii ci ci néegam fii kii loo ko mën a jox mënoo ko fay. parce que gis nga intervention mu méttee. parce que ñi kii ji ko xam te ni yaayam yaayam dëmb la. mu bëgg a euh, coop sëtam doomam. kii mu ne ko loolu du am. xoolal loolu nu mu méttee loolu liggéey la. te ak deret nu mu fooree. waaw ak deret nu mu fooree. Ah. xam nga mënoon nañu ko ne yow sa yoon ne ci nii ak nii. waaw ah. moom comme nu mu ko waxee wax nañ ma na moom buy buy def intervention. Hmm. moom du calcul. kon ñun de bu ñu wax ñun du ñu calcul. Hmm. parce que li ñu wax du question hasard ko fabriqué ah. dañ koo gis. loolu dafa mel ni kon kii luñ ko mën a jox. Hmm. mënuñu koo fay. Hmm. yàlla mi nga xam ne moo am fay yéen a ko yàlla fay. ah xam naa ne xam naa li ñu si war a dooleel daal mooy gërëm Thierno rek gërëm ko di ko sant daal di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fii. yàlla may la wér ak wérle yàlla sàmm la sàmm sa njaboot yàlla may la yokkute xam-xam gën a yokk ba ñëpp daal ñëpp jot si yow Thierno daal mën nañu la wax mën nañu la fay jërëjëf daal lañ lay wax jërëjëf merci albarka moo de la fin de xam naa ne du bari xanaa kay di ñaanal Thierno rek comme nu ko waxee comme xale yi xamul ni ñuy doon ëllëg yàlla nañ doon ay mag yu am ñam ba dund moom yàlla bàyyi ko fi ba xale yi màgg ba xam liñ leen liggéeyaloon ba ñu fay ko ko mën loolu laay ñaan yal na xale yi màgg ba fekk fi no ñu waxal leen histoire bi ba ñoom ñu gër seen xaalis teral Thierno mm-hmm. yal nañ la séntu yoonu màgg ay yoonu yoonu yoon daal kontaan nañ kontaan nañ franchement yàlla moo am sa fay yal na la yàlla fay ñaan na suñ borom kër it yàlla bàyyi ko mm-hmm. may ko kàttan ak muñ jubboole tamit ay jabaram euh, son asi ñu may xale général mu bootal xale ba pare moom mi ngi nii jëlal jëlal benn waaw gëmbal soxna si jëlal benn macha allah <laughs> parce que gis nga ñaari guro yi moom macha allah wërsëg la. ñoom ñaar borom wërsëg lañu maanaam dinañ jëriñ seen waajur ci kàttanu yàlla. man it kontaan naa bu baax yàgg naa bootal ku ne mais boot bi dafa am spécial. waaw lii dafa lay baatin la du lépp la ñuy wax nag ah. kooku dañ koy tënk noonu ah. ay cadeau la yoo xamante ne soxna si moo ko demandé woon. Hmm. bi bi moom laa leen di jox ñoom tamit vraiment kontaan naa. ci li ma defal ñaanal naa la yàlla defal nañ leen jàmm ak taw feex ñëw ne aussi remercier ma man ma jox leen lii rek lii moom lu rëy la lii moom ku la ko jox defe naa ko aduna ak àllaaxira la la jox waaw la ah, te man lii rek laay nooye allah ah waaw mooy ni kii moom pour soxna si la ah, waaw keneen ki moom moo ngi ñëw affaire ah. waaw kii moom boo ko defee sa kër ak sa nekk. Hmm. jàmm rek nga am sa borom kër. Hmm. incha allah waaw beneen baa ngi nii maanaam allah gis nga yëpp bu ma xëccee allahu mooy njëkk a ñëw. Hmm. ñaar yëpp allahu mooy njëkk a gis nga. kon luy lu foor la ah. kii pour euh, suñu aaw bi la. bee suñu ñaareel bi. macha allah sëriñ bi mooy moom ko def ci néeg yi rek cadre rek. rafet la def ba dee gisoo man moom moo nekk sama néeg yi yëpp. moo ngi nii kii Mouhamed la. Mm. yàlla la yàlla ci barki yàlla ak barki yonente bi mm. euh, barke boobu topp leen ci njaboot gi aar leen mm. musal leen si seytaane cat ak làmmiñ bàyyi leen ak seen boroom kër yàlla defal leen xéewal bi nga xamante ne du jeex mukk vraiment lu lu rëy la lii moom ak lii lu rey la fu mu nekk jàmm rek ngeen de am man gis nga sama kër gi yëpp ay allahu muhammad rek ngay gis waaw vraiment moo ngi noonu ñaanal leen mu yeewi leen xam naa ne guddi lii dina tax xale yi yàlla aar leen yàlla sàmm leen ci lu bon dara lu bon du leen mën a attaqué parce xam nga saay saay moom du mus a tekki ndembam waaye nag eh, ñoom liñ def nii xel la quoi hmm? bu ñëwee fii def lii wala am na yeneen téere yi téere yi kii keemoo ko moom maam Fallou kii maam Lamp kii bu nekkee ñoom dara lu bon lu leen du leen ñeme dara lu bon lii daf leen di aar fooseb ba leen di leen di aar ci lépp daf leen di musal ci lépp aussi daf leen di aar aar seen waajur tamit yii dafa baax <laughs> bu leen neexee ngeen wàccee foofu kee ngi nelaw moom maa doon naan lii mosuma ko def <laughs> jël ko Eka. Eka. comprendre nga. waaw. waaw bien. ci yi. di diw guro yi seen yaay mën nañ ci yéeg mën nañ ci raxe. comprendre comprendre waaw bu yooyu la ngeen koy denc. kenn ku ne mën na ko def sa waxande denc ko foofu. armoire quoi waaw. kenn ku ne mën na ko def sa armoire. mooy mm-hmm. yii nii. non yee. Mm-hmm. kenn du mënal seen doom dara seen kanam kenn du leen mënal dara seen kanam ak seen ginnaaw. Mm-hmm. parce que xam nga saay saay dañoo garaaw da ngay jur sa doom ñu ne ko coppet yóbbu xam nga lu ne mën na ci nekk. waaw ah, léegi nag daf leen di aar ci lu ne kenn du leen dugal ci banditisme kenn du yàqu daal. dinañ nekk ci yoonu siraatal mustaqiim ci yoon bu ngeen bëgg aussi parce que jur doom dafa metti mhm. jur sa doom mu muy def naka sudul noonu kat di loolu baaxul mhm. mais boo juree sa doom day jël yoonu njub mhm. yoonu maanaam nit ku baax ay loolu mooy seddal xooy yaay bi loolu mooy seddal xol xol papa bi mais bu dee da ngaa jur doom muy dugg si yeneen affaire tamit vraiment loolu day metti quoi léegi nag fii lépp la am man lépp laa def daal li nga xamante ne day aar nit ci kaw suuf yàlla sàmm la aar la ba nga mën a gañe sa vie Mhm. teral sa yaay teral sa baay. Mhm. lépp la ñu def fi ñaan bi parce que du ñun kese ñoo fi nekkoon aussi. ba mhm. am ñeneen ñu ñu raxoon. waaw kon dañuy sant yàlla bu baax di leen ñaanal jàmm bu baax a baax. bi nga xamee ni ki nga xam ni mooy Soundiata def na li nga xam ni mooy liggéey bu. doy waar du liggéey boo xam ne bu am sens ci ñi nga xam ni moo fi nekkoon ay patient dañ koy bàyyi mu joxe moo de la fin ndax heure bi xoj nañu ñu jaaree fa tëj tàggatoo ak yéen maanaam la suñu nga tàggoo rek joxe si mot de la fin. alhamdulilah rabbil alamin damay sant yàlla di julli ci yonente bi defe naa ne lii moom ah, rafet na trop. jóg nañ Kaolack ñëw ba fii def déplacement dérangement ñëw. yàlla def boot nañ xale yi ci biir boot bi tamit am na yu bëri yu ma ci gis. sant yàlla bu baax a baax. Mhm. maanaam rëccuwuma lu ma leen doon bootale xale yi. te macha allah li ma ci gis mooy njëriñ gudd fan ak wér ak yokkute. ba mun a jëriñ seen waajur yi. Uh-huh. loolu laa fa gis di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp naan leen c'est important lii am na solo trop trop ñoom it vraiment ay nit yu baax lañu moo tax man tamit ma sawar di def yii. parce que moo ngi nii boobu ba tey ñi ñaa ngi ci biti mais c'est important mhm. su la yàlla boolee ay nit ñu baax ngay jëflante ak ñoom ñu nekk ay nit yu reconnaissance mhm. aussi bu ñu ñëwee dina la jaral nga bàyyi sa temps bàyyi sa yitte yëpp mhm. mun a toog waxtaan ak ñoom ak yooyu kon sant yàlla di gërëm seen borom kër bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ak taw féex moom it borom kër bu baax la parce que day bàyyi ay yitteem ànd ak ay soxnaam macha allah lii macha allah lu rafet la yàlla gën leen jubóole parce que lii lu rafet la euh, kontaan naa daal ci ñoom dina ñaanal jàmm ñoom ñëpp naan leen fii seen kër la. waaw defe naa ne moom fii moom seen kër la waaw naan leen bismillah. di nuyu waa site bi aussi doguma la. Mhm. waa TMTV le roi di di leen oh. nuyu dina ñaanal jàmm ak salaam. defe naa ne nag bi moom lépp foofu lay xewee. Uh-huh. di nuyu Pape Sidi soxna Asi di nuyu monteur yeeg. Uh-huh. caméraman yeeg yëpp. Uh-huh. di nuyu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah ginnaaw bi nga xam ni kàddu yu am solo yu jug na fi ak jëfin yu rafet yi nga xam ni am na fi ki nga xam ni moo di xalif général kulli médecine traditionnelle defati na fi ay li nga xam ni moo di lu kéemaan a kéemaan dañ fiy jaaree di leen tàggu di leen jox dig daje ci beneen ak feneen ndax man ak moom dinañ jàkkaarloo. beneen jàkkaarloo bu bokkul ak bii jàkkaarloo boobu nag dina metti torop te yàgg. xaar leen ko voilà tëkku na ma xaar leen ko bientôt dina ñëw di remercier waa Sen TV bu baax a baax le roi du manding bu boobaa damay xaw a ñeme rek damay remercier bu baax a baax di remercier ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëwoon di leen wax bon voyage yàlla na yàlla gën a protéger merci beaucoup beneen émission